ayca jërë ngeen jëf mbokk internet yu Wassare Lamb ñu nuyu bu baax a baax di leen ziar di am mbégte ak kontaante comme ni ñu koy defee euh, chaque grand combat combat bu mag bu ñu mënti am fii si Sénégal rek ñu daal di génn si mbedd def reportage reportage yoo xam ne yu am solo la tey nag bu ngeen gisee fii ñu nekk ngeen xam ne ñu ngi fii si Pikine boo tuddee Pikine nag xam ne combat boo xam ne fu mu toll nii 17 jours moo si des wala sax 16 jours moom moo si des si diggante kan ak kan Balla kii di Boy Niang ah Boy Niang Boy Niang la cappaacoli moom la koy wax moo tax. déggal loolu la <laughs> cappaacoli yi Boy Niang donc loolu lay war a tey fii la moo tax ñu dem fii euh, ma ànd sama cameraman bi Khalil automatique ce gars il est automatique Boy Niang il est automatique Balla Gaye il est automatique moi je suis automatique ñu bàyyi woon leen ngeen di bandi bandi laa ah, ñu ñëwaat pour war leen ni duñ seen morom faraj faraj la cappaacoli bu xale topp ma ñëw xool làmb bi. comme ñu xaar mooy ko ñu non fii Pikine la rek Pikine moom fii la syndicat nekk waaw syndicat waaw. bi daaw na dem mu nekkee xale doo wër rek taxawaalu moo tax fu ñu dem ñu xàmmee ko nga ni man Pikine waa kaña gu fi jógee sax yow laay faral man Pikine waa la. kon kii du Pikine waa. non moom mu sañ na faral ko ko neex mais man laax man dama ne Pikine waa la man waa Pikine laa faral. noo gisee combat Balla Gaye ak Boy waa combat nag bu sérieux. waaw du combat bu ndaw combat bu sérieux la. xanaa ñuy ñaanal euh, Modou Gueye rek yàlla may ko ndam lu sedd guy ci combat bi waaw yàlla mi nga xam ni moom moom lépp moom ñëpp te moom ndam ñu koy ñaan mu may ko doomu dégal bii. Modou Gueye mooy mooy Boy sa doo bu doo tax Balla Gaye xonjam ko a moom. non lamb yombul. non parce que moom dafa jàpp ne combat bi yomb si moom boo. waaw boo combat bi. du wax bëri ay secondes léegi sax changé na ko ne day bëri ba dem ardo ñu naan. non moom waxu leen dafa yomb taxawul fenn day fa yomb. non mais ni muy waxee quoi. non wax waxee ki muy bëril waxee na ni ko ni a garaaw bi muy dajeeg ay magam tey nag pente bi moo moo tourné Balla Gaye mi dajeeg ay magam joxu leen benn respect ak lu mu ndaw ndaw joxu leen respect yaa ngi dégg kii nag ba léegi romb ko mais li mu doon wax ay magam instant bi dafa sens inverse moo fi nekk da koy dékku parce que mooy mag. yow loo tëdd xalaat ne ah, man daal bëgg naa sama mbër mi loolu mais xam naa ni Balla Gaye moom moom matul yàlla seede na ni Modou Gueye mosuma koo xalaat ci bëre mosuma koo xalaat ci xeex xam nga lu may xalaat ci moom mooy li ko nit ñi wax pour mu def ko mais bu dee bëri rek ak xeex dama kaa topp de billaahi wallaahi mosuma koo xalaat ci làmb xalaat ci làmb mosul am da nga mel ni koo xam yow da nga mel koo xam dëgg dëgg ah, ma xam ci moom de li ko nit ñi di ma du naan boo ñaa xaar ak lak da guerre la ñooñu xamuñu moo Gueye mais parce que combat am yu bëri lañ ko gis. muy def non dañ dañ ko dem seetaani. nañ dem seetaani boo yaa ngi dégg nañ dem seetaan ko moog euh, euh, nu mu tëddee sax euh, Pape Sène. nit nag dañuy gaar dañuy yomba tappal nit étiquette mais ko xam Modou Gueye xam ne daanaan la ba muy dem Mbapat daawut ànd ak kenn léegi nag dem Mbapat ànd ak sa gàngoor yoor jaasi moo yomb Modou Gueye ba muy dem Mbapat maam jogo maay dong lan àndal te fu ne fu ne fu ne tas ko ci bëre bëre daa na ci moom de te da koo doon ñaari yoon nag. mais ku muy bëre. namp bëre ñu comme ni ko waxee maanaam ni ñu ngeen dee ko xaalis bëre. non nampul bëre da koo doon ci benn wet boo ñaar koo doon ñaari yoon boo ñaar kuy nijaayam. wax boo ñaar mooy mu mag ma. waaw kuy baayam. dëggal mooy baayam kon kooku ñaari wet la jël làmb jëlu ko ci benn côté de waaw. xeex la na jeexee parce que boo ñaar moom la xeex moom. ne waxtu sax naa fu mu toll nii ay seconde ne dafa bëgg moo Balla Gaye bëre xeex ba ñu xoox. xam nga lu ma leen di ñaanal ñaar ci bis boobu yàlla bu jàll galaaj jàpp kenn ci la ñuy xam kuy doomu dégul li boobu muy Balla Gaye muy Boy Niang yàlla bu ci galaaj jàpp kenn ci la ñuy xam kan mooy Modou Gueye. waaye amoo confiance. non du problème confiance c'est-à-dire xam nga waxuma la kii daan dama la bis boobu la ñuy xam kan la kii daan ba léegi waxuma la diw mooy daan déggoo ko sama lamiñ de. mais dama ne bis boobu la ñu xam kii mooy kan. boo ñaa mu Boy Niang mën na ko daan. Boy Niang mën na daan ku ne buñ leen natt ci dayoo. mais bu ñu xool palmarès nombre de combat Balla Gaye ñu mu bëreel. waaw ñoom. Balla Gaye lu mu def si nu mu defagum si làmb Boy Niang dafa si làmb. Uh-huh. Euh, boo Niang Balla Gaye ci carrière bu fekkee damay wax te jeté wu ma ay fleur yaa ngi des ka Balla Gaye adversaire bu coriace bu mu am ci làmb. adversaire bu coriace bu mu am ci làmb yaa ngi des que saalum saalum la woon mu metti loolu yàlla may ko ci ndam ba mu ca rombee yëpp ay bég ay beñe diwub la doon jàpp bi mu ñëwaatee dal ci doju ngor bi ko ne gis na nu mu fa demee muy ëmma seen comment bi muy jël si Yaxya Diop Yaxya Diop mi ngi ci porte de sortie bi daa noon daa neen nag Modou loo daa neen ni Modou Lo mais li ma lay wax ne dama nga toppaat combat Balla Gaye nga xool ay adversaire nga xool ay adversaire u Balla Gaye yi mu yëpp ndaanaan la nag mbër la mais dama nga xoolaat ay adversaire bu baax a baax nga ñëw xool ay adversaire u Boy nga xam ne bokkuñu yoon bokkuñu yoon de pare combat bi kon non man combat bi déggoo li mu la combat bi moom incha allah dinaa ko seetaan ñaan Sénégal def yàlla def fi jàmm ñu seetaan ko ñun ñëpp ci jàmm ki am ki war a am ndam nag yàlla na ko suñu borom may ndam te maa ngi ko yéene boo ñaari di ko ñaanal ci kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy. jaajëf frère tubi naka la. man Malick Koli laa tudd. waaw. bala bala premier janvier daa fa ñëwaat daa topp isaat yow. kan man waaw. <laughs> Kobé naka mu. waaw maa ngi lay maa ngi lay ziar sama waa ji. ki fi nekk rek. Issa Dieng Joru ak Afou Diapo. ak Afou Diapo fu mu nekk pro. yàlla yàlla def pro. toogee métti la. waaw Sénégal mu toogee am nañ entraîneur mais dañoo juum contre entraîne contre euh, contre Angleterre dañ cee juum ndax la nga science la nga tegoon contre Équateur. nga am ñaari milieu défensif yoo xam ne ay xeexkan comme ku ci mel ni Pape Gueye ak Pathé Ciss nga changé leen système boobu nga changé bien vrai que Gana Gueye manqué na mais à la place Gana Gueye Nampalys Mendy mën na ko jouer parce que foofu dafa laaj rigueur ak technique ak contact loolu la laaj système boobu nag mu changé moo tax loolu moo tax ñu gagné ñu jaajëf loolu passé na dañ lay wax combat loo xam ne mooy ñëw si diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang noo gisee combat la ñu dëkk te ku xam Pikine xam làmb ku ne làmb ne Pikine Boy Niang Ama Baldé Eumeu Sène ñoo fi nekk man di wax yow magu booy bala laa bébé Balla man magam laa ñoo bokk ndey ak baay. nee na moom bébé Balla ñoo bokk ndey ak baay wuyu fii nga xale xale numéro xale bi ngay na pour la la boo bàyyi xale jigéen numéro seen numéro yi ngay man. waaw man magu booy Balla laa booy bala booy Balla bi nekk écurie Pape Pape Diop Boston sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay moom it nañ ko bàyyi xel te xam ne yàgg yàgg day ñëw. moog Tek Choc ñoo war a bëri la 11 février ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu doom ci kaw Tek ci kaw Tek Choc. am na ndam am waaw mbër la mais ñun ñaan nañ yàlla yàlla may ñu ndam amul ñun tiituñu Tek Choc tiituñu ko ragaluñu ko te tey ñaan yàlla yàlla may ñu ndam miin naa xam xam naa qualité yi nekk ci moom ci kattanal waaw li may wax ci Balla Gaye Boy Niang ñun ay Pikine lañ dëkk ku ne làmb ne Pikine Pikine dafa baaxoo ay mbër ku xam Pape Diop Boston xam Falaye Balde xam Fodé Doussouba nga xam ne Pikine làmb làmb yàgg na fi ñu ne deet na waaye Eumeu Sène ñëw nekk fi ñëpp nekk ay mbër daan jàpp ay mbër di daan Baboy nekk fi bala Gaye 1 nekk fi Tyson nekk fi ñooñu ñoo lancé Pikine ba tey ñoom Eumeu Sène ñoo jël bi après Eumeu Sène ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang Boy Niang ku ne gis na preuve mu def contre Tapha Tine dañ ko conseillé lu bon mais buñ ko bàyyoon mental rek mentalam rek mën na bëre tactiquement mën na bëre parce que Boy ñaa def na judo def na boxe ndax ku def juróo def boxe mën nga def MMA man mi di wax man mi di wax j'ai fait l'armation à part football bi j'ai fait en ceinture en ceinture jaune en supérieur en taekwondo le maître Lamine Lamine Lamine Mendy mooy sunu mooy sunu maître ci complexe bi fii. mais kuy bëreel kooku noonu. Balla Gaye xale bi moo mar a bëre xale bi lépp lay bëre nga def tay taekwondo judo karaté kaawaak xale bi non Balla te Balla Balla bu njëkk ba xale bi moo ñëwaat. Balla Balla bu njëkk ba moo ñëwaat gis naa ni gis naa ni Balla Gaye am na doole mën na bëre mais li ma la mën a xamal. palmarès yi bokkul waaw palmarès yi bokkul Balla Gaye ñu mu bëree Boy Niang bëree ak ñoom waaw Balla Gaye ñi mu bëree Boy Niang bëriwul ak ñoom Boy Niang d'accord Balla Gaye moo dàq bëre Boy Niang mais bu ñu fàtte ni Boy Niang dafa daan ay daanaan Balla Gaye daan ay ndaanaan Balla Gaye ndaanaan kon yaakaar naa ni tey jii Balla Gaye bu mu defe ni moo mën waa ji mënul booy bi de booy bi ni boo ko gisee ni mu taxee nga xam ne physiquement daa pare mentalement daa pare Balla Gaye arme day ne peut day song te bu songee lan la fay fekk te boo Niang tactiquement luy bëre boo Niang boo ko fekkee ci nam boo ko fekkee ci mëninam da lay daaj. la may nam la may mëninam Boy Niang la may mëninam day taxaw xaar la comme ni mu def saa da lay bàyyi combat te Balla Gaye la dëggee ñooyam day taxaw day aree rek. non te Balla Gaye non te day ñëw Balla Gaye du du xaar du mbër boo xam day xaar mën na la jox ay minutes bu minutes yooyu weesoo day ñëw sa kaw su doon maay Boy Niang dama koy xaar bu ñëwee nag ma daan ko jël bu rëy te boo Niang bu jàppee ngeen ma am yaakaar ni dina daan Balla Gaye parce que Balla leen ngay bëri moom moo ëpp boo ñaa moo sut suramaay boo ñaa damay dugg ci gàrdab dóor ko bala boo ko touché rek yàq nga bëreem ama seen fu mu jaar ngeen bëgg jaar déggoolu fa la ñuy jaar fa ko raw xoolal fa la ñuy jaar fa ko raw sam waa ji lii man maa la ko wax affaire bi xoolal Pikine Géejawaay la dër bi la amul leen lu ñuy ragal fii ay mbëri ndaanaan ñoo fi nekk sama mbokk élève booy xaaw ne am leen laaj booy taxawal booy taxawal booy Pikine ngeen dëkk combat laa di laaj rek taxaw leen eh. booy combat boy naa Balla Gaye. ah booy daan. foo ñun am nañ doole am nañ lépp. am na Balla Gaye mën a non non mënu mu bëree bëree wuleen ak mun na nekk mais. moo la ëpp rek kañ le premier janvier on maa maa ngay waxal. oui foo de. xamal ngi ñëw. booy booy ko booy woo kër ngay jàngee yow xamee naa la. waaw combat bi moom. Balla Gaye duñ ko minimiser quoi ndax mbër bu mag la. lool ñëpp xam ne ko. mais moom ñu moom suñu espoir yëpp mu ngi si Boy Niang jeune la. mu ngi Balla Gaye. nañ koy jàppee si Balla Gaye taay rek. Balla Gaye ni mu defoon Tyson Boy Niang incha allah noonu lay ñëw def Balla Gaye incha allah te du mujj fenn ah, bu dee ah, doole oh, oh, doole xale oh, lay yor Balla Gaye mag la nangul ne ko nag mbër bu mag la mais ins bi nag relève bi ñoom ñoo fi nekk dañuy ñëw dindi lépp Boy Niang dafa nekk si yoon te kenn du baare yoon bi ku ñëw mu la dem am na lu ñu bëgg ba si ama jaajëf ah. kooku lan lu mu moom waaw kaay kaay kaay saa loolu kay jarul laaj Boy Niang daan xool Balla Gaye Balla yambar la Boy Niang dafa mën a bëri lu leer laa la wax te moom du reculer te bu reculer moom Balla Gaye bu ko songee daan moo ko gën a waaw moo ko mën moo gën a fere moom ñum daan yëpp bàyyi nañ bëri. dugg na Pikine dix fois Eumeu Sène rek moo fi daan. Eumeu Sène moo ko jaaxal parce que Eumeu Sène rek fi la fi jëloon. mais mbër Pikine yëpp daan na Balla Gaye ñu ñëpp bàyyi nañ bëri ñëpp imaginal ay ñoom baa booy ak instant nii moom fii Pikine moom Pikine ragal dëkkatu fi moom macha allah instant yi booy ndaw lañ yor dañoo mën a bëre laf cat te dañuy doon roi des encore. kan mooy doon xanaa booy ñaa wala Ama Balde ñoom ñaar lañ fi am ak yeneen boy di raam ci suuf muy ay ñoom sox ak ñoom kenn xamul. waaw sox am na combat mais tamit ça veut pas tamit erreur de jeunesse rek mu daanu mais booy ñaa moom moog Balla Gaye bokkuñu macha allah laf cat. Euh, nu mbaɗa mbaɗa selli mawɗum jamu jamu séréer non buuru séréer buuru séréer la de buuru séréer nu gisee combat Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye moo ko mën yéen en yéen sakka gi ngeen di yéen Boy Niang koy daan waaw dellu bu gaaw da koo gis ah, dama ko gis lu leer laa la wax leer laa ko teg yaakaar naa bokk ah. Karamba daa am lu ngeen man. Karamba dama ko gis rek Boy Niang da koy daan Boy Niang moo ko mën si bëre laa ko teg. Boy Niang ñaata fi la am Guédiawaye. bëri na bëri na. mais Balla Gaye na. mais Boy Niang 10 combats. Boy Niang li mu moo ko daan. ñaar yoon mais Boy ñaa benn defet la am Guédiawaye. Lac de moo ko daan waaw. combat bi combat bu nar a neex la. combat bu gaaw ama neex tamit daan na ko. kan ama neex. mais ama neex wax géej waay géej waay laa wax booy ñaata victoire la am géej waay bari na. mais yéen su ma gisee waa Pikine yéen da ngeen mel ne da ngeen xeeb Balla Gaye. non ko sax mbër la mbër la moo tax ñu jël ko champion la moo tax ñu jël ko mais fu lu leer laa la wax booy ñaar da koy daan jël bu gaaw. mais yéen da ñaari défaite presque. yan mais Balla Gaye dañ koy daan. Balla Gaye dañ koy daan Boy Niang da koy daan Ama Sène ñëw dogali ko lu leer laa la wax. topp ma da nga bàyyi bi ngay wuyu. man daal li ma leen mooy Balla Gaye dina ko daan jël bu set wicc nag mën naa bëre mën naa yomb nit ñi moom ku mu neex faral ku la neex mais qualité bëre yi bokkuñu waaw qualité bëre yi bokkuñu waaw Boy Niang moom li mu wax na dëggal kon kon moom nee na day dëggal boppam. kooku moom nee na day dëggal boppam na dagal boppam rek lamb ji kay jeex na Balla Gaye moom ñëpp xam nañ ne moom lañ tuddee dëggal sa bopp moom lañ tuddee dëggal sa bopp moom nee na day dëggal boppam du daw jeex na combat bi jeex na lu mu mënta leer daal Balla Gaye da daan man loolu laa xam waaw. Boy Niang mbër moo ne day bëreeg Balla Gaye ah Balla mi ngi tudd Omar Sakho. Omar Sakho mooy rakk si mooy mag si saa kes Omar Sakho moo ñu formé moo ñu yar Omar Sakho moom képp kuy bëreeg moom na nga taxaw nga xam ne gaynde la boo Balla Gaye yàlla na ko yàlla may ndam. Omar Sakho mel ne yàlla na ko yàlla may ndam si barke Serigne Fallou Mbacké. yow yow na ngay dëkkee Pikine ba pare di ñaan Balla Gaye Balla Gaye daal. ah Balla Gaye dafa bokkoon si mais booy ñaa tamit yàlla na ko yàlla may ndam quoi. parce que loolu muy nekk lool ñëpp ay mbër lañu. waaw ay mbër lañu quoi. a daan. ah kenn rek moo mën a daan. waaw kenn moo mën a daan Balla Gaye waaw. waaw non non daan mais Balla Gaye lañu bëgg quoi waaw. Boy Niang mooy daan wala daan. ndeysaan. koy ñaanal mu daan. maa di ñaan ñoom ñaan ñëpp ku daan baax na. léegi yow ah laa war waaw noonu ngay def Balla Gaye moo daan moo daan Gris Bordeaux waaw moo daan Modou Lo wala tase ak Boy Niang moo daan Issa Pouye dafatal naa waaw Balla Gaye ak Sa Thiès musuñu bëre de ah Balla Gaye musu bëre ak Sa Thiès waaw ah, bëre ah, na ak Sa Thiès mbapat lan wax waaw mbapat mbapat waaw waaw waaw bëre nañu mbapat waaw ah Sa Thiès moo daan lañu wax waaw jërëjëf ah, Ama Sakho maa ngi lay nuyu rendu de pas yaag Baboy maa ngi lay nuyu xëy na nag lamb moo garaaw quoi barki Serigne Saliou Mbacké maa ngi lay ñaanal di la nuyu man de champion laa woon xoolal lu nekk def nañ ma ko xoolal mooy muñ di muñ di muñ mais ba ma ba ah, ah? man man man bëre naa fi bëre naa feeg yanda bëre naa feeg ay nit bëre naa ku nekk wër na yàlla xoolal avance bi ñu ma jox mooy loolu sëñ Modou Karamba Karamba moom dégg naa ne mooy loolu noonu day faj jinne waaw ah, musuñu bëre non non musuñu dafa taq ci man. waaw ah, ay tuuram nga ah waaw ku ma ko jox ma bëre. Ah, waaw. dafa am jinne de waaw. ceg sax dafa am jinne ak Tyson. waaw. Balla Gaye dafa jeexal fi mu nekk nii Balla Gaye mbër bu muy bëree bu mbëru Pikine man moom laay supporté mais nag Balla Gaye Boy Niang moo ko moo gën a féete ndaw quoi. mag la te entraînement yi bokkul boo Boy Niang instant boo xoolee seen signature nga xam ne boo Niang moo doole quoi. Boy Niang mën a taxaw. Balla Gaye ñu mu daan Boy Niang daanu leen Balla Gaye palmarès bu am Boy Niang amu ko Balla Gaye moo expérience ci làmb mais Balla Gaye ñu daan ñi bi leen daan fekk nañ ñu màgget Yékini bi mu koy génne làmb ji fekk na moom Yékini Sénégal yëpp ko ànd sot dañoo bëggoon waaw parce que maanaam bëgguñu kenn jël benn affaire rek nekk ci nekk ci nekk ci bëgg ñu jiitu kay ah, bëgg ñu kenn jiitu quoi loolu moo tax Yékini xam ne benn instant foofu noonu dañ ko sot quoi Sénégal yëpp dañ ko sot pour bëggoon mu daanu quoi parce que bëgguñu kenn jiitu rek faaw ngay laal di may sa moromu laal ama seen dem nañ fi ba ne daan ndayal boppam suuf léegi nee moo dàq bëri ca làmb ji wala demee nag Boy Niang Boy Niang li mu dañ ko koo conseillé dañ ko conseillé mu bëri mais buñ ko bàyyoon ci xelam boppam rek mën na benn bëri leneen lu dul loolu noonu mais Boy Niang boo ko bàyyi ci xelu boppam rek moom mbëri kenn moo man Balla Gaye Balla Gaye daal moom na bàyyi booy ñu dem rek loo koy loo koy conseillé si lamb mu ñëw xew wala mu ñëw bëre na ñëw tegal Balla Gaye pied droite bi Balla Gaye boo ko tegee <laughs> na ko tegal pied droite bi dégg nga te jëli ko bu mu xaar dégg nga Balla mënu pied droite boo ko tegee day jaaxle contre Gris Bordeaux loolu moo tax mu dóor ko mu rëpp dégg nga <laughs> ma baa ma jox njool na ngeen a teel kii garab bi nee na du ngeen leen teg tele <laughs> ñu wax sama garab bi non dee Njool ñëwal Balla Gaye Boy Niang waaw ñun Boy Niang ñun gisee combat Balla Gaye Boy Niang da Boy Niang moo woon Balla Gaye du làmb quoi du làmb Balla Gaye mag la na xajal booy ñu dem sama xam-xam bu gàtt boog. Balla Gaye daan fi ay xale daan fi ay mag nga ne mag la. léegi màgget na Balla Gaye perdal na. mais Balla Gaye quatre ans la magee Boy Niang. mënoo di daan fii di daanu fee mënta ne ah. non non ñaa daal bala daal la bàyyi booy ñaa mu dem rek waaw Sëñ Fallou yaa ma gën a xam ñun dañoo bëgg egg fa gaa yi àgg fa Modou Lo àgg leen bëgg àggu ñun waaw 100 pour cent Pikine jeex na tàgg nag gën a xam la bàyyi ñu dem rek seen xaal bi neex na yéen ñii ngeen toog lekk moom laa lay mën këjop neexu ma wax ji taalibi Sëriñ Tuubaa li muy woote bu fekkee dëgg moom mbala lalam ji dafa bari na na wax quoi Sisa mi topp li di sóoru mi moo xam xam Sisa moo gën a féete ndaw gën kaa doon xale bu baax a baax mais moom këjop boo xam ne taalibi Sëriñ Tuubaa eh, ba pare na ci àll di yuuxu di tooñ na bàyyi loolu noonu ki na bàyyi la xaw ma ki job xaw ma ki ñu ay taalib si ah, waaw waaw nag calmez vous calmez vous yéen Boy Niang waa léegi te job am na droit supporté Balla Gaye dëgg la ñu dëkk Pikine non ñu dëkk Pikine aayuñu li ñu supporté Balla Gaye de man Balla Gaye nee naa mbër muy bëre bu du mbëru Pikine man moom laay supporté Balla Gaye mbër muy bëre bu du mbëru Pikine man moom laay supporté man Eumeu Sène mooy sama mbër Eumeu Sène mooy sama mbër dégg nga mais ki job dafa bari wax neexum bu bàyyi wax ji. Ah, wax su ma ñëwee nag neexum maa ngi fi Sandaga fi ñuy jaay xaaj ji dégg nga comme que moom moom day sóor waat boo xam ne kii Ketchup neexu mu ñëw moom xam man xam xam naa xam naa. du dee 6 ans dara Ketchup 6 ans ko mën waaye Ketchup 6 ans ko mën. ma ne kii moom dégg wala faat eh, yow yow yow Sénégal bi ñëw tàngaay bi ngi si lan xanaa ñu bëgg rek. wax ma loolu boo ñaax baale baale merci. boo ñaax baale kay. doo ko olof. doo ko olof dara. boo ñaax baale kay ku may daan. ah. Boy Niang Balla Gaye ah Balla Gaye waaw man do olof de gara li ñaar lay jar deux mille li cher do ko wàññi mille cinq cent ah, yow dégg wala dégg wala baar ma moo gën a ne fa la saytaan booy topp mañ dem baar ma booy yéen bàyyi jëlee jàng jàng booy Siteu nge Siteu booy yàlla bi na nge akali ah, sa mbër mi fi nga waxoon ne Siteu mooy sa mbër yow Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Boy Niang loolu dafa leer màgget na kay. dafa màgget. sans li ñuy wax ni yëpp day xaanju nii rek. waaw léegi dañuy waxtaan rek sans sans far. waaw sans far waaw léegi waaw waxtaan sans dafa màgget yow. Balla Gaye daa màgget yu mu nii yi passé gis nga ko. moo giri gis nga ko. waaw moo Bombardier gis nga ko. waaw ah, ci gis leer na le Balla Gaye mii màgget na ay rappel mal dese rek. Balla Gaye bu na parce que Balla Gaye 4 ans la màggee la màggee Boy Niang. 4 ans 4 ans saa ñu yàgg nañoo suivre lamb de Balla ba muy bëre Boy Niang bëriwut sax Balla Gaye ba muy bëre Boy Niang bëriwut Boy Niang moo ko gën a nekk xale moo ko ëpp doole wax jee fi nekk nii rek. Balla Gaye daa ko bëre. Balla moo daa ko bëre ci nan ci nan ci nan. mbër yi mu daan mbër yi mu daan. Ba Boy Niang daanagu leen. waaw Boy daa àggagul fi Boy fi Balla Gaye àgg fa la moo tax bëre mënut a bëreeg ñooñu loolu rek la de. daa ne ku bu lëndëm moo mën waa da ko jiir si néegu lëndëm ah mais bu bu bu làmp yi tàkkee Balla Gaye dina xam dina xam. combat xeex la dara jeexee wala ci ci bëre. ah. ci xeex làmb ji moom mun naa jeex si xeex ndax Balla Gaye koo laal lay bañ. Balla Gaye koo laal lay bañ boo ko laal day ñëw sa kaw. booy moo nekk naan Balla mooy daan booy yow gëm de. combat bi saa mën naa jeexee ci xeex sax Balla Gaye boo ñaa mën ko dóor sax mu wàcc barki yàlla wóor na yàlla mën na demee noonu sax billaay walaay gëm nañ ko yow Balla Gaye la Boy Niang du defee cent vingt francs yow doo dërëm Boy Niang affaire bi Balla Gaye 2 la boo bëree mu dóor la nga daanu boo bëree boo xeexee mu la nga daanu déggoo ma yéen bu ngeen xeexee ñu dóor ngeen daan bu ngeen bëree ñu daan leen barke yàlla Balla Gaye màgget na te Balla Gaye màgget Boy Niang lan la Boy Niang yow da nga baax rek kii affaire bi Balla Gaye la ah ba déggoo ma de. 100% Pikine la mais affaire bi mais affaire bi Balla Gaye la de. mais Pikine moo bëri ay défaillance affaire bi Balla Gaye la. déggoo ma de ñun Pikine lañ dégg mais affaire bi. seen biir yéen Boy Niang feeg la. Balla Gaye fekk Boy Niang fekk affaire yi Ama Balla Gaye la. ñun Boy Niang lañu wax. Ama Balla Gaye la billaahi. déggoo ma de. Balla Gaye màggat na. Boy Niang ñoo bokk benn koñ mais affaire bi Balla Gaye la. affaire bi Boy Niang la ñun Boy Niang ñun defe naa lañ. ñii dañoo war a ànd mafia. Pikine ñaari mbër la am Pikine ñaari mbër la am. Eumeu Sène Ama Baldé. boo ñaaree xaar daw laaxu lañ ñi ay daw laaxu lañ këjëb la këjëb këjëb këjëb wër na yàlla ñi ay daw laaxu lañ booy ñaaree xaar booy ñaar lañ wax booy ñaar kese yow ma mbër booy ñaar kese Pikine benn mbër la am te Ama la jeex na amul keneen booy ñaar si la bokk booy ñaar moo may woon ñaar une minute la may woon instant bi lu mu ñëw ba mu ñëwaatee lu mu wax day yàgg mooy loolu woon rek eh, lamb ji waa Pikine moo ko soxla waa waa Pikine ñoo ko wax loolu waa Pikine ñoo soxla lamb ji ñoo la ko bul bàyyee dara ñun ñun mayloo ñu la dara may loo ñu daal bul maye dara xoolal bu jaaree mu koos ko sax mu. leer na leen leer waa Pikine bii. dafa naax na ngaa demaat. xamal la tax ma retourné xamal la tax ma retourné xamal la tax ma retourné dégg nga xamal la tax ma retourné sama ndey booy ñaa laa wax moo la gën a xam ne bër bu ko fàqal mu ñëw. Balla Gaye màgget la Balla Gaye mënut a fàqet. mais dafa barke alxuraan yoo ko mën yéen waa Pikine xam ngeen ko. Boy Niang musul daan mbër. Boy Niang musul daan mbër mbër muy sonn la. may muy yabal ay ñoom ay paa yi naa limsa bi mu ñëw ñemewul limsa bi tapel la tapel la yoo xam ne yéen waa syndicat yi leer na xam ngeen ne Balla Gaye kooku. kii yow naa wax waaw dañuy waxtaan dañu leen ko xool dañuy wax làmb waaw dañuy waxtaan ci ci làmb sëñ bi dañuy karim billahi non non waxuma la ay waxi daan dama lay dafa nang il faut maanaam il faut il faut maanaam ngeen ngeen dégloon kii wax kii wax après ngeen wax. maanaam maanaam day nangu ba pare. abitage may may ma ñëw. droit de yéen Balla Gaye kii Balla Gaye màgget na. wala waaye bu ah, dee Balla Gaye la Balla Gaye la. yéen a créé abitage léegi wàcc leen tali bi après pour oto yi mën a jàll. wàcc leen tali xale bi topp ma xale bu doon. waaw waaw dama ñëw wax. xaar xaar xaar waay waay. ba daan ko dama ni. billahi waxuma la ci làmb laa lay wax dañuy waxtaan. boo ñaar tànkam dëgëru lamb rek laa lay wax ay tànkam soo ko fàqatee mu def kaanam léegi Balla Gaye meram ay tànkam ma de Balla Gaye ci soir ci soir lamb kenn musul jël la euh, tànkam waaye posal bis bi waaye posal bis ni sëñ la d'accord la waaye yéen leer neen ni leer neen ni leer neen ni moo ngi wut ay jafalu di dem ci ay ay xolo ay ay bu lim saa ñëw bu diw ñëw xoolal ñëppay ñëw booy ñaa yéen leer nañ leen kenn du si teg sa juróom Balla Gaye man ku dul booy ñaa Balla Gaye barka alxuraanu karim ma nga teg 1 million ma teg 1 million kañ teg léegi boo wedee léegi ñu teg ko fii mu tane léegi léegi ñu teg ko ñu indi ma teg ci booy ñaa 1 million lay teg yow da ngaa ñëwee teg ci booy ñaa booy ñaa doo si teg mbër muy sonn mbër muy sonn booy ñaa mbër muy sonn la yéen ngeen di xale la muy bërek la degeer sonn déggoo ma sëñ bi sëñ bi sëñ bi man booy ñaa fi la ko Gris Bordeaux dóor mu rëpp Gris Bordeaux moom mooy yàmbale même Balla Gaye day ñàkk dégg nga bu ndaw la su ma di ma gëm bu la ragal ci ñoom ñaar xool moo gën a ragal ci lamb waaw d'accord waaye li siy Sa Thiès li Balla Gaye du benn mbër kooku mooy lamb kooku mooy lamb Balla Gaye bu bàyyee lamb ma suuf sama ndey xale dootul seetaan lamb Balla Gaye mooy lamb ci Boy Niang dara Boy Niang ñetti at mu tam juróom benn mu am victoire Boy Niang ñaata amul victoire ngeen naan xale la Balla Gaye bi muy ne Balla Gaye dama fi maa ngi fi bilaay jël na coono bilaay walaay taala waay su sumee ko àdduna kontaan man géejawaay laa dëkk doomu géejawaay laa ba bu ñu tullu syndicat laa tax waaye géejawaay laa jëm man géejawaay ñoom ñu vitamine ñii amuñu vitamine ñoom xoolal mango jaa ngi orange yi keroog xaalis jaa ngi nii lépp amuñu vitamine ñoom lu fay jaay yéen xaalis yi ngeen di jaay ayca jërë ngeen jëf mbokk ayca wasaare ba léegi sax ñoo ngi fii si Pikine saa waay ayo ñëw yow ñëw dama dama waaw ma booy da nga doon naan mbër booy. ma nekkul moom mooy. diggante combat Balla Gaye. waaw loolu la ma ci wax yàlla na yàlla def jàmm rek loolu laa ci wax de aw ma leneen lu ma ci wax faralu non yow booy Fall il faut nga faral kenn affaire neex na neex non faruma kenn ku daan baax na. mooy daan ku mën rek combat bi moom xam nga ne combat bi xam nga mën nañoo li ñuy yaakaar ne day am mën naa bañ a demee noonu quoi parce que man combat bi. Serigne Bamba. Balla Gaye rappelle-moi le décès màgget na. Balla Gaye màgget na. màgget na Balla Gaye màgget na mën na ko sax dóor mu wàcc waaw. barki nawet bi sax mën na ko dóor mu wàcc. mais bu fekkee dina ñëw agressé ko mais bu fekkee day ñëw di bëgg a bëri li mu daan bëri combat bi du am benn sens. combat bi bu ko Balla Gaye bëggee yàq day yàq koy yàq bu ko Boy Niang bëggee yàq mu yàq mais li ma la ko xamal mooy. na bàyyi Idi Diaby sa bëre di bëre bëre waaw te bëre waaw Boy Niang du engagé ah. boo ñaare ba mën a indi na bëre daan ñu loolu la ñu war a asaaloo combat bi combat dañu war a asaaloo loo bëgg combat bi dañ koy entraîné dañ koy calculé mais mais dafa nànk rek mais yàgg na yàgg nañ di wax naan booy ñaa day arrière rek arrière rek fii laa la ko waxee booy ñaa dafa leen eh booy daf leen nànk rek daf leen nànk rek yéen lamb ji lii lamb ji lamb ji wax rek lañ ci am ni mooy lii ñi dañuy xaar dégg nga ñi dañuy xaar booy ñaa wax rek lam ci lamb ji ak ñëw taxaw di arrière. ak jëf ak jëf. ak jëf arrière rek lam ci combat amu ci leneen. Balla mooy diriger. combat ndax nu ma gisee ñu waxee. booñaa bu ñëwee bëgg a bëri lim daan bëri. combat du fa am. combat du fa am. Ah, bu ñëwee di xaar. bu ñëwee di xaar combat du fa bu xaaree du ñëw. Ah, kon mooy dal ci koom. combat moo tax combat bu doy waar la de. calcul bi mooy mooy bëri ci combat bi loolu mooy problème combat bi bon loolu loolu ay wax la rek. aca aca aca xale topp ñu daal avancé fële ala. suñu mbëray daan muy Balla. waaw Boy Niang moom liñ ko xamee moom bu ko bare làmb ji du neex day bëgg ku daw dal ci kawam te Balla paase na foofu du booy yooyu Balla li muy bëree technique lay bëree ak moom waaw bu ko jàppee bu nungu la Balla dina ko fekki. dina ko dóor ñaari ku daw jàppanteeg moom daan ko mu gaaw booy ñaan ak moom li muy wër mooy ku ko dàq te yooyu dafa xewi si làmb booy yi si daa eh, daan boo xoolee booy yim daan ñëpp dañ ko dàq si làmb mu daw taseeg ñoom jël ko daan leen. ko waat waaw mais boo taxawee xoolal euh, sos bi mu taxawee nu mu ko def da koo daan xoolal ama neex bi mu taxawee nu mu ko def da daan ah. booy ñaan ñi mu ñëpp danoo daw attaqué ko. mu daw tasee moom jël ko waaw mais Balla Gaye moom du bëree noonu yoo xam nga ne Balla VIP la Balla lu muy def ci intellectuel la koy defee waaw dina ko daan jël bu rëy lu leer laa la wax nag Balla du cuune yooyu waaw boo déggee gars yi naa Balla dafa jeexal Balla dafa jaax loolu waxin la rek xoolal combat yi mu mujj a bëre. ah combat yi mu mujj a bëre baaxul moom. ban la bëre bu baaxul. mais mais mais mais yow ban bëre la bëre lu baaxul. Gris Bordeaux Gris Bordeaux Gris Bordeaux ban su Gris Bordeaux Gris Bordeaux kañ nga mujj a gis ñu bëre ko daan daan ko ba war ci kawam ban année. Balla rek a ku ci def loolu. ñeneen ñi nga yaakaar ñëpp danoon niil ak moom ay budloo. ah daju ci dara. Balla moom boo déggee dëgg dëgg boo bëggee gis mbër dëgg xoolal Balla Gaye ah combat yi ni ma ko gisee mooy ñaari mbër moom bu ñu leen boolee ku nekk mën naa daan sa moroom waane nag am na koo nga xamante ne nii mooy favori ci làmb ji Boy Niang dañ xale la Balla Gaye dañ mag la Boy ñaa nag moom moo war a def euh, effort pour mën a daan ci mbër yu mag yi parce que boole nañ ko feek ay mbër yu mag yooyu yëpp dara baaxu ci yaa ngi dégg yooyu yëpp demut combat bii nag ah moom nee na xale la xale nag Balla ba muy toll fii doon xale mbër mu xaw a mbër mu ko féete mag boo jàkkaarloog moom nan la lay def yaa ko waxal sa bopp kon nag moom loolu la war a loolu la war a def. na temps bi waaw dan dan nag lenn dinaa la xamal. lenn dinaa la xamal daf ko ñàkk waaw. waaw. waaw. bàyyi ko moom waaw. waaw. waaw. mais kum daje dafa différent ak yeneen mbëri. waaw Balla Gaye doon na fi roi. waaw takusaan bu ne bëri na ko. waaw. liñ koy conseillé mooy mu dëggal boppam taxaw wuy ma taxaw te respecté Balla Gaye 2 parce que Balla Gaye 2 mbër mu ko respecté wul doo ko daan de waxuma ko mbë mbër yi mu bëree mbër yi bëree Balla Gaye 2 ñoo ko wax Balla Gaye 2 boo ko respecté wul doo ko daan boo ñaa il faut mu jox cër Balla Gaye yaa ngi dégg dikk ni ko lii laay lii laay jël waaw loolu mooy wax mais nag bu ñëwee naan kii mag la kii mag la loolu sottiwul de li ko la wax rek nee na ko mageelu mag ak loolu du dara te ñun ñëpp xam na ni mageelu mag ak rak loolu dara quatre ans waaw kon nag kon kon kon xam ma ne mageel amu fa waa mageel amu fa presque li ma koy conseillé daal mooy moom moo war a prouver yaa ngi dégg fii daal wuy ma carrière làmba moom fii la nekk fii lay déclenché wala fii lay faye da koy tànde lu laa wax Balla Gaye laa la wax Boy Niang wax Balla la gën a mun a gaaw a daan ci mbëri parce que xam nga lu tax Boy Niang laa la wax ma ne Balla Gaye la gën a gën a mun a bëril moo mbër bu mel ni Balla Gaye la gën a mun a bëril ay ñoom Tapha Tine ñoom la déggeer ak yooyu boo Niang loolu da koo mën comme mbër bu mel ni Balla gis nga Sa Thiès ko def yaa ngi dégg man nag li ma wax mooy combat bi maanaam tey bu bëggee am li mu amoon si Sa Thiès bu arbitre soufflé mu agressé ko bu dul loolu tamit combat bi du neex du nekk combat boo xam ne liñ ci doon xaar duñ ko ci fekk parce que bu bëggee taxaw di bëgg a dégg Balla Gaye ak tactique Balla fa lay nekk naa ko taxawal ñu bëre te tamit Balla du dof te keroog dégg nga ni mu waxee nga xam ne combat bu ñëwee du ci du ci du ci jaay boppam te Balla tamit combat bi bu ko Boy Niang lépp lu mu def ci carrière da koy suul du amati benn njariñ waaw waaw Balla Gaye bu ko Boy Niang daanee waay baña kan Balla Gaye bu daanoo ci combat Boy Niang bii non defet bu mës a am ci àdduna moom mel noonu man maa la wax li waaw tamit combat bi ni Pambay wax rek Balla na ko Boy Niang daan loolu la ñuy ñaan Balla Gaye na ko booy Niang daan bu ñëwee taxaw dëggal boppam du am dara mais bu o agressé am dara mais bu fekkee dafa ñëw bëgg a taxaw benn ñaaral dañuy niil wala Balla Gaye daan ko waaw ah déedéet Balla Gaye moo déedéet mais xam nga day am benn boo xamante ne mooy retouffé lu bëree bëree bëree bëree maanaam day am benn boo xamante ni day am benn victoire boo xam ne mooy defar sa lu bëree bëree bëri day am benn defet boo xamante ni mooy rëdd fee lu bëree bëri tey Balla Gaye mënul yàpp waa Pikine ndax boo xoolee menn mbër bu dul Bombardier bi muy bi muy toll ay diggu guddeem bi muy joxe ay minutes ci la ko ëmb seen daan ñaari yoon bi muy joxe ay minutes ci la ko ëmb seen daan ñaari yoon kon kooku mënul yàpp waa Pikine léegi ñun li ñu dese mooy Boy Niang booy waaw Boy Niang la ñuy xaar booy Niang bu taxawee di def tactique tactique di xaar kii daan juum rek mu daan ko non du yomb mais li mu li mu signature ca première signature am ba ca première signature am bu ko bu ko appliqué ci làmb ji yàlla xam na ne mën na daan Balla Gaye affaire Boy Niang la fii mbaaru pour gis nga am euh, kii Boy ñaa li mu li mu li mu li mu li mu wax noonu loolu sama xel mu gàtt non warul woon a wax loolu la Eumeu Sène Eumeu Boy Niang Boy Niang ndax li ci Eumeu Sène du ci Boy Niang li ci Boy Niang du ci Eumeu Sène moom ñoom ñaar seen i bëre bokkul ñaareel ba dafa war a dafa dafa war a sóor comme bu gëddee moom tamit mu taxaw ñoom ñaar ñu daje gone gu ndaw la comme li mu wax waaw mais gone gu ndaw la rek comme li mu wax na dëggal boppam taxaw bu gëddee mu gëdd taxaw bu dóoree mu dóor ñoom ñaar ñu daw daje mais bu fekkee dafa bëgg a taxaw ay benn ñaaral noonu man maa la wax man supporter Boy Niang la moom laa bëgg mu daan mais bu fekkee dafa bëgg loolu non du daan Balla. waaw. bien sûr. Boy Niang am na bëre bu daan ku dul bo ku dul Balla Gaye. problème mooy Balla bu changé mais gis nga bis boo gis tey keroog keroog ñun ñëpp ñun ñëpp képp kuy seet kuy seetaan làmb bi muy daanaat bala Gaye ñu ci bëree bëri yaakaaru ñoo ni bala dinañ ko daanaat. ok. salaamaaleykum yéen yéen yéenay waa Fanak ak foo leen jógee <laughs> waaw yal na leen yàlla jàppale mais xam nga combat bi ban image la lay jox Tapha Tine Boy Niang day daw ba bi jeex fa lay yem man maa la wax lii boo Boy Niang xalaatu la Boy Niang Boy sama waa sama waa mu neex leen mu naqari leen Boy xalaatu la sóoru Balla day daw ba combat bi jeex eh. défaite par par avertissement avertissement la combat boobu di jeexee. yow feere nan eh, mën naa ci mën naa ci teg sa ay baaraam naa eh, ci teg baaraam mën naa ci teg baaraam nel benn nel benn ta nel benn tawaatin ni la de nel waaw saa googu sax am na nu mu doon demee day ñàkk day Sa moo yàkkamti parce que Sa moo joxul woon Boy Niang ah, cër mais du mu Boy Niang Boy Niang xam nga lu gis ci ko ci ay combat am daw ba mu jeex mbëru mbëru mbëru gis nga fii mbaar mi déglu na déglu na déglu bàyyi day bàyyi xaaral action la action la action la gaay léegi yow. waaw boo ñaax Balla Gaye ah, bu bu naar bi. bu ci ci ci bu ci yàlla ci bu ci bu jëloon teg rek ko booy ñaax ci lay teg si waaw. waaw naar bi waaw bu bu ci bu ci si bet. si booñaa lay teg si bet. waaw si bu waa code booñaa ñaata lay doon. Oh, Balla Gaye code ñaata. ah booñaa lay doon. waxal. code code deux ak code sept. kan ko am code sept. ku am code deux. booñaa. Balla Gaye mooy non non Boy Niang mooy ñu Boy Niang mooy daan waaw. xaw ma loolu moo tax. mbaar mi ñii ñii di wax ni yëpp. mbaar mi amul loolu. Eh, déglu ma mbaar mi fii mbaarum Boy Niang la. fii Pikine la mbaaru Boy Niang la ñii nii di wax ni bay eh. wuy wa eh, gaay de eh, mi. mbaar mi mbaaru booy ñaala duñ la ñu déglu nañ déglu wax ñu déglu. non point ay goro ngeen ay goro ngeen. wax la ñu déglu wax la ñu kii kii goro booy ñaala goro Balla Gaye la kii géejewaay la dëkk. mbaar mi mbaar mi eh eh da nga may déglu maa mi mbaaru booy ñaala Pikine fii booy ñaa moo moom. non yow dama naaw yow mënoo dëkk Pikine ba Balla Gaye dëkk Pikine ba pare sunu mbër la dañ ko yàgg supporté Balla moo taxee ma dayee Pikine ba Géejawaay waaw bëgg ko mu nekk sama mbër moo tax ma dem tuxu si foofu mbër bari bëri fii mbëru Pikine amuñu kóllëre ñu bari jaar nañ fi ci mbaar mii di fi toog guddeeg bëccëg suba ku ci doo dootoo ko gis ñu soxlaa luñu leen dërëm dañuy liggéey ay liggéeykat lañ ah. Balla non paa bële ma paa bi ay suuf la xaaral si paa man moom li ma gis mooy. Balla Gaye moom. xool caméra li tax ma koy faral. mooy bëreem du tricher. te ku nekk daan na la fi. nekk na fi roi des arènes. ñi maaseloon ñëpp moo leen jëkk a doon roi. mbër la làmbam man loo gisee mu neex ma du am violence du am niil du am daw. day bëri buñ ko daanee mu mu dem yoonam bu daanee dem yoonam mais Boy Niang moom ni muy bëree bu ko sensé wul combat dootu ko yomb parce que xale la Balla Gaye bi muy toll ni moom lu ne def na ko fi Balla Gaye bëri na fi cinq ans yum daanuwul bi muy toll ni fi Boy Niang toll kon Boy Niang moo moom combat bi moom moo war a fas jom xool ci waa Pikine gëm boppam jéem a attaqué grand bi daan ko bu deful loolu du am dara parce que Balla du cuune façon bëre boo indi xam na ko xam nga combat bu ne bëree na ko combat booy ñaa bi moo gën a tuuti ci combat am làmb ju am na ko yooyu jaaxalu ko mais bu booy bi gëmul boppam agressé wu ko du daan bala waaw temps bi nag wax na un une minute mais loolu voilà loolu ñàkk a gëm sa bopp la loolu rek da lay wan la gëmul boppam mais d'accord na ci continuer mais bu mu weddiwaat boppam adduna bi yëpp di ko dégg xam nga parce que Balla Gaye wax na fi Yékini deux minutes matu ko wax na fi Tyson deux minutes matu ko kon ñaa bu waxee une minute warul weddi waat boppam ñàkk gëm boppam a tax parce que man bu ma waxoon une minute boo moytul quarante secondes laa lay te noonu lay demee waaw non Balla Gaye ñi six mbëri Pikine la daan fii man lépp fi la ma fekk dama doon dem nekkoon naa équipe bële xam naa leen voilà six mbër fii Eumeu Sène ko fi daan Eumeu Sène Pikine gépp waaw daan na Bathie Seras daan Coly Faye yaa ngi may dégg daan euh, euh, Boy Diouf daan Baboy daan Tyson 2 yaa ngi dégg daan Tyson bu mag daan Baboy waaw waaw muy six personnes yooyu yëpp Balla Gaye daan na fii Pikine bu doon Eumeu Sène Balla waa Pikine seen kii lay doon voilà noonu la demee mbër mi daan Balla Gaye mbër mi daan Balla man nag musul daan mbër Pikine muy Issa Pouye Issa Pouye daan mbër Pikine fii nii eh waaw Issa Pouye la ne roi bi fii la Pikine la non palmarès bi laa wax gis nga Pikine roi moo eh. la ne Boy Niang rakku Eumeu Sène la Ama Baldé rek Eumeu Sène la sa ñoom ñooñu Eumeu Sène moo leen daan ko ñaar yoon dégg nga kon roi bi fii ñii mbaarum Boy Niang lañ toog fii mbaarum Pikine la kii Guédiawaye la dëkk Guédiawaye la dëkk fii Boy Niang moo ko moom fii Boy Niang moo moom taxawal ki la ko laaj benn question léegi tontu ko question bi nga ko laaj ne ko Balla Gaye kii jël kii da nga koo laaj da nga koo laaj question léegi tontu ko da nga ne ko da nga ne ko kii daa Boy Niang moom moom fii. Boy Niang fii la daan ñëw. Boy Niang moom moom fii. mbaaru booy ñaa la fii mbaaru mbaaru booy ñaa acca acca acca acca moo ngi noonu mbokk internet ci wasaay laamu dina loo indi loon tey booy ñaa kese booy a baax dama ko toog da nga màgget dégg nga <laughs> <laughs> loon tey si reportage boo xam ne ñoo ko defoon fii si Pikine euh, mbaar mi nag ñii ne syndicat ñii ne mbaar mi mbaaru booy ñaa la ñii ne mbaar mi bool baala ngay la ci sëfër yi sëbër comme yooyu. ñoom partie trois partie le premier leer en tout dina leer. leer ci combat boo nar a am diggante kii di Balla Gaye 2 ak Boy Niang nar a am fële si sa piki. waaw affaire booy ñaara. affaire booy ñaara waaw booy ñaara ah. waaw jërëjëf. waaw ah, voilà waa kay jërëjëf ok merci beaucoup gars jaajëf jaajëf. waxoon naa leen ah waxoon naa leen baa leen di bànn bànn balaa waa Wassare Lamb di ñëwaat donc mooy noonu euh, Wassare Lamb ñëwaat na si reportage yoo xam ne ñoo ngi koy defaat si diggante gannaaw bañ pare si Papa Sow ak Siteu ñëwaat si beneen reportage boo xam ne ñoo ngi koy def si diggante euh, kii di Boy Niang Boy Niang ak Balla Gaye 2 ñoo ngi ñëwoon fii si Pikine si chauffeur camion yi. loolu la syndicat fu bagage yi dem ñoo koy yóbbu bagage yu mag yi bagage yu ndaw yi yëpp waaw. jërëjëf jërëjëf amala 77 425 13 29 bagage yi foo bëgg a dem ñu yóbbu ko fa Ziguinchor Kolda Sédhiou Fouta Wara Soogi Matam Aéré Lao Dunguro Alpha Burkina fépp foo ngeen jëm. 286 37 40 foo bëgg a dem ñu yóbbu la VIP yaa ngi fii. loolu leer rendez-vous le premier janvier incha allah rabi fële sa arène nationale Balla Gaye Boy Niang kan mooy c'est à vous de juger. saxal rek. mais booy loo si salle bi nga xam looy def salle heure heure bii naaj bu tàng. waaw xam nga ni man ma jox mais yaa ngi si formule. waaw yow luy loolu. mais sax yaa ngi ñàkk nii oh. mais dee si booli jël avance yi bàyyi avance yi ngay delloo. bon naan ko avance avance la joxee avance nga delloo ko. lii wax nii avance laay delloo. booy quatre fois delloo ko bu paree nga obtenir yow mbër nga. kan mooy avance quatre fois. xam nga booy tëngeej bi daal dob dob lu Tëngéej am na ku ma mën a dellu avance am foofu. mooy xam nga Gamou Gueye. Gamou Gueye Tëngéej ku dul Gamou Gueye su ma fa duggee du jóg. nga <laughs> naan ma ay Gamou Gueye. kooku mooy gan Gamou Gueye delloo avance am yow. kooku moom moo la wax loolu. duggal si réseaux sociaux yi nga xool. man réseaux sociaux laay dugg. taluma réseaux sociaux je m'entraîne dire. kon ku dul Gamou Gueye bu taxawee sama kanam ma leb ay fanam. boo amee connexion duggal nga xool. bàyyi wër lu nooy jëlal si booy yi nga bëri. man dugg xoolal dugguma réseaux sociaux jéem a vérifier Gamou Gueye moo la wax loolu. Gamou Gueye mi ngi yàq sa der xam naa nu may def man. këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak rekeju. waaw loolu ay wax la rek. toogal foofu xam nga koy ah gis ma ko waaye gaalam mu ngi ne la. gaalam waaw mun nga ma wan gaal bi. gaal bële la mu ngi ne la. mooy gaal gële. waaw bële mu jëm si ginnaaw la. mu jëm gële. waaw amul problème. ok jaajëf waay. jaajëf maa ma seet ko foofu. waaw bëggee waa Guèye. jaajëf jaajëf. jaajëf. Ah, boy ana Gamou Gueye. Gamou Gueye dem na. fan la dem. xanaa du bii mooy gaalam. gaalam la kañ. waaw kon anamu mun nga ma wan gaalem waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay boole. ana eh, ana gaamu gay laa Gamou Gueye mooy wër si dëkk bi naan man dañ ma jox ensemble ba pare taxaw leen sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu Gamou ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. yéen añ leen seen añ. Eh, tooñoo leen ma Gamou moo ma tooñ añ leen seen añ bu ñëwee ngeen ko maa ngi koy wër si dëkk bi. Isaan mais yow mbër mi bi muy ñëw fi di yëngal gaale bi xam foo newoon yow booy mbër bi dëkk parcelle te fa mbër mais ñëw na fi ruube na kër gi yëpp ñëw na fi ruube na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi जाऊ गए ko jàppee da koy teg. bokkul sax non gis nga gis nga lii mooy bokkul sax waaw mbër mu mën gàmmu gën. fan la ko ko teg yow la ngeen wax yow la ngeen wax waaw di ko bëggee bi ndax ko bëggee la. mais yow est-ce que yow gis nga yow est-ce que yow gis nga yow dafa am mbër yow. non non non non war na yàlla koy daan. non non non yàlla koy daan dafa def attention war na yàlla ci la koy daan war na yàlla def erreur boo xam ne nii yàlla koy daan force lan la koy daan da koy daan mbër mooy mbër bu nekk la mbër tamit la fi mu lama xam nga lama waaye ci li mu wax sama gaay kii day tëggale gàmmu gën ak tafa mbër loolu du lam ma ne ko loolu du lam loolu combat la ban combat. loolu combat la combat bu mu nekkee combat. combat la bu mu nekkee combat lan. parce que combat bi taxaw na. le 24 décembre bii. Mhm. 2022. Mhm. Tapha Mbeur ak Gamou Gueye dinañu bëri ci arène nationale ak waa Yaram Art Events. dinaa toog sama kër jàkkaarloog seen affiche seetaan ko. du yow sa kër ngay toog. waaw man stade laa jëm. kon dinaa la woo téléphone suba teel fa la may fekk. dinaan sama yu sedd. loolu yëpp leer na le 24 décembre incha allah arène nationale mu war a nekk en direct sur seen affiche.